Euh, ñu ngi am mbégte bu baax a baax euh, ñëwaat ak yéen fii ci dëkk bu sell bi fa yéene ànd ak wax mbokk yi waxtaan ak ñoom Euh, ci li nga xam ne moom moo jëm ci actualité ak tamit li nga xam ne moom moo soxal askan wi ci 28 pro 28 euh, pro nag di maison de production boo xam ne mu ngi ànd ak yéen ci li leen baaxee ay xibaar ak tamit ay euh, production yoo xam ne nii daa ngi leen soxal lool lool mbokk yi ñu ñëw fii ci Touba Xayra ba tey wala ci Touba Daaru Xuddoos ànd ak ak ci ndaw ñi nag nga xam ne donc ñu ngi yëngu ci ci dëkk bi ci lu baax loo xam ne dana jëmal kanam askan wi euh, muy Serigne koso Ndiaye dama koy bàyyi rek mu nuyoog audit euh, askan yi bi nga xam ne doo ko ñu ngi ñuy seetaan bu ko defee ñu jublu ci waxtaan bi sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waa ñu ngi lay fay bu baax di rafetlu seen ñëw bi ngeen ñëw fii ci Darou Khoudoss euh, di leen ndokkeel ci bisu tabaski bi. di ñaan yàlla mboolem tiyaaba yu ñu ci am rek ñu bokk ko ak yéen. Hmm. ci présentation bi Kosso njaay moom mooy kan. waa Korso Ndiaye mooy di doomu Alaaji Lamp njaay ak soxna Maam Bousso Samb Koso e, juddoo ci dëkk bi yaroo ci dëkk bi màggee ci dëkk bi ba toll ñi mu toll e, di yëngu ci wàll bu nekk nag waaw ñu yëngu ci jënd njaay ñu yëngu ci mbay mi ngi yëngu ci daal lépp rek li góor yi def rek koso mi ngi koy ñu ngi ciy yënguti daal. Hmm. Hmm. Euh, koso fan la jàngee. Euh, Daaru Xuddoos sàq ma euh, école Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma. Hmm. waaw jàng jàng alxuraan jàng français kon. waa français bi moom it aussi rek xam nga booba ñu ngi ko commencé di jàng ci jamonoy Serigne Saliou mu toog xilaafa gi xam nga. Euh, mu xawoon a kii daal mag ñi xam nga ni ñu xawee woon a soxale njàngum français mi fii nii loolu moo taxoon après tamit bi ñu ci xawee xam tuuti rek daal di yëngutuwaat ci wàllu métier daal. Mm-hmm. waaw. alxuraan bi yaa ngi dem ba fa bi waaw waaw jàngoon ci tuuti ñu ngi ci daara ku naan mm-hmm. daay moom rek. it mooy jiite naafile foofu noonu sax ci. koor ci kër Sëñ Fallou. Euh, kon euh, sëriñ Kosso Ndiaye suñ ko waxee nag euh, danañ maanaam jëm ci ndaw ñi waaye dañuy tàmbalee comme ni ko seen kilifa yi tamit defee muy wax ci li nga xam ne moom moo soxal discours xalif général des Mourides ci tabaski bi nga xam ne moom la ñu weesu ñu ngi ci ndokkeel askan yi ñuy seetaan di leen baal ak di leen baal ak boobu boobule yéen ndaw ñi. yéen nga xam ne bokk na ci nga xam ne yéen gën a ñaax ci waxtaan ak yéen parce que yéen a yore ëllëg yéen a nekk ci réew mi ëllëg yéen jiite discours boobu yow noo ko jàngatee. waa discours boobu moom dafa euh, laal yëpp. Mm. rawatina ñun ndaw ñi ndax ñun ndaw ñi 76 yi moo fi nekk 77 yi 78 yi waaw mooy 80 1996 1997. 1998 loolu mooy ndaw ñi fi mu toll nii. ñoo mm. xamante ne si ñoom ñoo war a jugaat ngànkaat Sénégal. Mm-hmm. xam ci Sénégal lu bëri nag ndaxte yaakaar naa ne ku fekkee jamono yi euh, ñu fekke woon jamono yi sëñ Fallou mais ci jamono yi sëriñ Abdoul Ahad mm-hmm. ak jamonoy yi sëriñ euh, Mourtada sëriñ Saliou ak euh, sëriñ Abdou Khadre yëpp. Mm-hmm. ñu leen di fekk. lu ne tamit am na lu ñu ci mën a jàngat. kon bu ñu demee ba Serigne Mountakha eh, ñëwaat fi defaat discours bu mel nii rawatina démb euh, ci ci tabaski bi kon loolu noonu ñun ñoo war a jógaat waaw xoolaat ñun ndaw ñi mm-hmm. kat na man war a doxale sunu sunu sunu sunu sunu sunu réew man mm-hmm. war a jàppaatee euh, diine ji man man war a mën a fonkaatee lislaam mm-hmm. ndax euh, fi ñu toll nii kat dañu nekk ci mujj jamono wante eh, lu bëri day xew wante yow boo amee sa ngëm-ngëmu bopp rek da nga xamante ni sëñ Tuubaa moom kenn la waaw kon boo gisee démb rek bi ñuy ñëw ci yoon bi rek daanaka fi ñun Mbàkke Kajoor lañu jullee mais yoon bi yëpp depuis sept heures ba euh, onze heures ci guddi lépp am ndox la dañoo mujj taxaw sax daaru ma si di xaar euh, ndox mi wàññeeku mhm. kon boo xoolee rek xamal ne euh, suñ Tuubaa moom kenn la mhm. boo demee tamit côté Kajoor gee ñu nekkoon démb heure bi sama ronkañ daanaka mu ngi tuuru lu ko tuur ndax euh, dëkk bu wow rek gisuma benn ñax ca heure bi ba may dem daaw gisoon naa ñuy sax di lekk ñebbe foofu noonu ci tabaski bi mhm. mais ren gisuma benn tool yépp a ngi sa jooy kon ñun bi ñu fay jógee daanaka discours sëñ Muntaxa bi dañuy delloo siwaat mhm. waaw dañuy delloo ci ci ci ci maanaam ñun bi ñu nekk mhm. génération bi ngeen nekk mu doon génération boo xam ne nii euh, bëri na ci ñoo xam ne maanaam euh, mun naa wax ni ak déggoo amu ci mhm. ndax euh, ñenn ñi ñu ngi koy gisee ni yéen da ngeen ni maanaam wut seen intérêt bopp yéen en tant que jeune ñeneen ñi tamit ci maanaam dox loo xam ne ni maanaam yittey kenn lay doon maanaam bëgg-bëgg benn nit Euh, loolu euh, yéen da ngeen bokk ngeen ci ñi nga xam ne euh, am ngeen ci part de responsable pour taxaw waxtaan ak yenn ndaw yoo xam ne gis ngeen ne maanaam dañu xaw a réer ci benn côté lan mooy seen taxawaay dëgg-dëgg par rapport ak jeunesse boobu noonu. waa xam nga jamono bi ñu nekk nii dafa woote yi li naan woote yi bari na wante kenn ku ne xam ne ci nga jëm waa ñi réer rek ñoo fi nekk di xamuñu waa ne kenn ku ne xam na position bi nga nekkee mhm. euh, boo gisee mbir mi xaw a jaxasoo ci bopp doomu aadama yi ak euh, tamit euh, ni mu xaw a kiyee ñoom ñoo delloosiwaatu seen bopp mhm. wante képp ku xam fii ci Touba xam li fi nekk mhm. xam liggéey suñ Touba bi xam ne lii moom luy jëm kanam lay doon amaluñ ci regret ndax àdduna moo bindoo noonu kenn ku ne yaa ngi naan fii la kii yam ak kii yëg a def nii wante ndaw man mosuma xam tamit ne danaa am ndigal loo xamante si dinaa dem ba tey ma mën a ñemee toog ñu di di télé di ma interroger léegi ci sama ndaw mosuma ko xam mhm. kon suñ demee ba suñ boole ma ci e, tey ñu dem ngeen dem ba maanaam ren jot ma di ci bokk mhm. kon sëñ la mhm. te ñun ndaw ñi ñoo dellusiwaat ndax sëñ Saaliw moo waxoon ne jox ma ndaw ñi ma def ci ñoom la mu ci mag ñi te Serigne Saliou moo doon cinquième xalifa Serigne Touba cinquième position. Mhm. Serigne Sidi Mokhtar di septième position. Mhm. Serigne Mountakha di huitième position. Mhm. te gis nga yàlla léppam gis nga ko. waaw kon ñun loolu war nañu delloosiwaat suñu bopp ndax la tax fii di tooy feewoo moo lay xamal ne kii may ñëpp mooy may. mooy may waaw waaw muy buur bi yàlla buur bi yàlla nag buñ koy ñaan dañ koy ñaanee ci ñaan bu sell. mais waruñu koy ñaanee ci loo xamante ni si sax déedéet euh, du ko wante ñaan sa borom am na ñoo xamante ni si duñu yor kurus. Mm-hmm. te duñu wax suñu borom mu am. Mm-hmm. am na ñoo xamante ni dañuy fanaanee kurus ba bët set. te duñu gis dara am na ñoo xamante ni si naka maanaam daal yàlla mooy bindee noonu. Mm-hmm. waaw mooy bindee noonu kon ñun ndaw ñi. war nañoo gëmaat suñu bopp. ci ca it fonkaat suñu liggéeyu. Euh, waajur waajur bu baax yi nii. waaw. toppaat ci mag ñi liñ toppee woon sëñ Tuubaa gëmmaat gëm ñin gëmee woon sëñ Tuubaa wóolu ko yaakaar ko ndax sëñ Tuubaa rek moo fi nekk ba léegi kenn nekku fi ku di sëriñ Tuubaa kon nag euh, ñun ndaw ñi ñoo jógaat war a jëmmalaat euh, liggéey bi nga xamante ni si moom la fi sëñ Muntaxa discours bu mel nii ku ko dégg war ngaa xam ne lii war ngaa mën a dàggiwaat sa bopp mhm. waaw ay ndaw ngeen ñu nekk ci biir dëkk bi askan euh, ci loo xam ne maanaam euh, dana amal njëriñ askan wi dana amal njëriñ yéen seen jëmmi bopp yéen ñi nga xam ne yéen ci sóobu ci lan ngeen yëngu jamono ji. waaw xam nga euh, moom liggéey kenn ku ne nag lan la sase man ci weeru koor bi la ma sëñ bi sase woon ab liggéey bu mu ma santoon pour jëmale ko Sarsara def naa ko ñëpp teg nañ seen bët. Mmh. liggéey boobu noonu. Euh, xam nga sëñ Tuubaa moom euh, moo ne illa la siine illa sar saara ndax sar saara ñaar la genn gi mu ngi gini gànnaar genn mm-hmm. gi moom lañ dénk maam Cerno maam Cerno yëkkati ko jox ko sëñ Moodu Awa Balla mm-hmm. sëñ Moodu Awa Balla yëkkati ko jox ko sama turandoo sëriñ ko sa astuloo waaw mm-hmm. ko sa astuloo jóge fi dans vingt ans bi ma amee vingt ans la fi sëñ ko sa jógee sëriñ sama sëriñ bu baax bi sëriñ Kara ko sa astuloo nekk fi vingt et une année tomb bi muy sama ñaar fukki at sama ñeent at ak benn mu jox ma ci ndigal ci sama 40 ans yoo xamante ni si maa ngi koy jëfee sama 39 euh, ans asafar la mhm. kon su ma demee ba def ko loo xamante ni sii ba gis ci nag lii kat yokkute la mhm. ma xamal ma xam ci ñu ma xamutoon daal di si di jëflante ak ñu ma ñu ma xamutoon kon loolu sant yàlla la kon liggéey boobu noonu dañuy bëgg tamit mboolem ak lu yëpp muy law mhm. ñi di ko commencé tamit maanaam ñu ay gone la xamuñu dara. Mm. dañ ñuy teete rek tey jii bu ma jotoon ci ndigal ci leneen tamit lu ma sant dama lu ma lu ma def dama koy def. Mm-hmm. waaw euh, seen cible en général ñan la ci ay ko euh, wax nga ko ndog yi ngeen defar. yóbbu ko euh, fële nga xam moom mooy Sarsara. mais loolu dafa am ay appui yoo xam ne nii dafa am fu muy jóge wala yéen seen maanaam poos si bopp lay génnee. Mm. naka ngeen koy déroulé loolu. waaw loolu moom daanaka ci suñ poos yi bopp lay jóge am nañ ci ñu ñuy bind ndax boo dañuy def ay lettres yoo xamante ni sax di ko wax suñu kilifa yi nga xam ne si ñooñu fi daal ñi nga xam ne seeni papa jóge nañ fi. Mm-hmm. te ñu nekk fi ñooñu euh, mën naa ci citer ay tur yu bëri ay kilifa yoo xamante ne bu jotee ñoom dinañ ñu ci jàppale ci liggéey boobu noonu yaa ngi dégg. Mm-hmm. nga xamante ni loolu tamit dañuy bëgg muy law di dem fu nekk. ndax wax dëgg yàlla ren jii rek ànd nañ ceeg waa kër Mame Baye Niass euh, barki démb bi ma demee tamit euh, Kaolack hmm. dem kër sëñ Bassirou ziyaare euh, sëriñ Babacar mu kàbbaro moom it vraiment yëgal naa ko hmm. xam na tamit liggéey bi ndax wax dëgg yàlla wala lante nañ foofu hmm. ci bëgg nañ daal Sénégal gépp wala àdduna bi yëpp tamit. fu ngeen fa mën a def ngeen waaw fépp foo xamante ni war na faa àgg ñu àggale ko. Hmm. ba ñun tamit bu ëllëgee loolu noonu ba ci ñi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi sax ñun ñëpp di ko yëpp hmm. ndax euh, sëñ ko si Lo moom mm, da doon jàmbaar joo xamante ne si yàlla moo ko baaxaloon ci ñëpp mu àndoon ak ak lu yëpp. Hmm. murit tijaan xaatir yëpp. di daan ànd ak ñoom. tey di liggéey liggéey bu mucc ay boobu noonu. Euh, di ko jëmale si yàlla ndax yàlla moo la digal koor. moom moo koy fay. néewal kenn moom ma koy fayal waxul benn sëriñ ma koy fayal. dëgg la kon bu ñu demee ba yàlla ko loolu ñun ñuy ñu ko ci liggéey ci liggéey liggéey boobu dañ ci ànd ak ñëpp waaw. d'accord kon maanaam daal am na ci yéen ay kilifa diina yoo xam ne ñu ngi leen di jàppale ci eh, li nga xam ne moom ngeen yëngu ndax mbir eh, suñu borom la social la. kon kilifa diina yi am na ñu leen ciy jàppale. ñu ci alors bokk na ci yéen tamit yéen nekk ci biir ndaw bi gi teg seen bët ci ay ndaw yoo xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu politique Euh, ndax yéen tamit euh, est-ce que xalaat ngeen a egg foofee ñoom ñu àgg walla ngeen gindi leen ci maanaam politique boobu nga xam ne nekk di ŋàññante ban taxawaay ngeen ci am. waaw ñun suñ ci amoon ndigal ci politique. duñ ci ŋàññante kenn ndax euh, ñun li ñu fekkagul jamono si Senghor lañ ci xam bëriwul fekkewuñ ko yaakaar naa ñun ñetti position yi lañ ci xam. diwa man diwa man ak diw kee man jërut saagante jërut jorante jërut xastante. ndax yéen bokkaat fu ngeen jëmaat ndax kay tey jii euh, ñun ñëpp ay jullit lañ benn rek moo fi nekkoon di di di catholique koo xamante ne si moo ci nekkoon di nekkutoon jullit kon yaakaar naa ne bu demee ba jullit yi bokk yor ko war war na noo mën a rafetalante ay eh, li ñuy waxante ak ni ñu koy politique ndax am na ci politique boo xam ne dafa xaw a waaw xëy na duñ ko tudde salte na xajam daal du neex ci ne sa moroom mënut ci moo man yàlla rek a man ku fi toog tamit yàlla moo la moo la moo la fi teg mhm. waaw ku fi jógee tamit yàlla moo la fi jëlee mën naa ne kon jàpp mën naa jàpp ne Koso Ndiaye daal euh, du politique waaw maanaam. Euh, amagoo ci ndigal amaguma ci ndigal. parce que waaye am nga yaakaar ne ëllëg di nga ci dugg. waaw loolu yëpp sunu borom moo xam. Mhm. te bu buñ ma woowoon léegi nii ne ma. Euh, waaw wala àndal ak diw tamit ma ànd kooku ndax man ci ndigal laay doxee. Mhm. murid la mhm. euh, doon Baay Faal bëgg a doon Baay Faal koo xamante ne si sama kilifa la. waa ndax ni Cheikh Ibra defoon rek Cheikh Ibra moom bi mu leeralee lépp. da nga koo jël ne ko fàng ci kaw. ñëpp di ko séen. ndax gisuma kenn koo xamante ne si euh, jumaay sëñ Bamba jooju yaa ngi ca biir ku dul moom dëgg la alors euh, ana euh, digal ndaw ñi nga xam ne maanaam ñi ngi nekk sa wet wala nga gis ne maanaam tamit war na noo mën a jublu ci lu baax ban conseil nga leen di jox foofu la ñuy jeexalee yaakaar naa ne waaw conseil bi ma leen jox daal mooy ñuy tënku ci ndigal waaw te bàyyi loo xamante ne si du seen warif mm-hmm. waaw lu luñ seen ñëpp buñ ci nekk lu solo yéen nekk nañ ci nekk wante daal murit ndigal lay jëfe te it képp koo xamante ne si yaa ngi ci yaa ngi jëfee ndigal euh, di bàyyi ay tere mm, yaa ngi ca yoon wi nga xamante ne si moom la sëñ Tuubaa bëgg moom la borom dëkk yu bëgg di sëñ Muntaxa Basiru mi nga xamante ne si ñu ngi koy ñaanal yàlla li mu bëgg ci yoonu sëñ Tuubaa wi yàlla na ko ci yàlla àggale ci daraje borom. jërëjëf alors 28 euh, Pro nag euh, di maison de production boo xam ne nii mi ngi yëngu ci wàlla euh, mbiru audiovisuel. Mhm. di leen baaxee loolu nag yow am nga yéene ànd ak ñoom ci liggéey bi nga xam ne donc moom la ñu tàmbale. waaw 28 ndax li tax ma kontaan ci kii nga xamante ne si moom ngeen àndal sama lépp la. vraiment mbokk tey jii lii lépp moo ko dox kon ñu ngi koy ñaanal yàlla lii ngeen commencé. yàlla na ko yàlla def li ngeen ci bëgg yàlla na leen ko yàlla defal loolu laa leen ci ñaan ndax tamit gis naa ci ak yokkute ndax maa ngi seetaan seeni avis fii ba mbuur ba fi may nekk ak yëpp ñoom it ñu ngi koy rafetlu aussi trop du Touba ak yëpp la yemal ndax ñu tamit euh, moom dafa doon jàmbaar ndax sarsaar bi ma doon def daanaka moo ko kii ba mu ba mu jeex waaw muy Serigne Talla Samb di mbokk ci man ñun ñaar euh, daanaka benn deret la boo ko dee xool ak sëñ bekkaay mi mu àndal ñoom it fu ñu bëgg agre ci yoon yi nga xam ne ñoo ngi koy def yàlla na li ci yàlla àggale waa jërë ngeen jëf euh, kontaan naa bu baax tamit ci fekk tabaski gi ndax euh, baalante nan ak liñ ci doon séentu lépp li mu retard lépp yàlla na doon banneex ci ñoom yàlla na doon ci ñoom jërë ngeen jëf merci jërëjëf euh, mu nekkoon Serigne Kosso Ndiaye moom la ñu daloon ci mm. seen euh, rubrique euh, découverte après tabaski mbokk yi ñu ngi am mbégte ànd ak yéen présentation bi Sidi Diakhaté Sidi Diakhaté la équipe technique bi ma àndal nag Bekaay Ndiaye Serigne mbake Fall ak Talla Samb ci wàllu éclairage ak son ak tamit image ñu leen koy baaxee mbokk yi dig daje ci yeneen jotaay jërë ngeen jëf